الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi tedd yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala boole ñu ñun ñëpp ci ñi nga xam ne dañ koy wéetal di ko jaamu duñ ko bokkaale kenn di ko gënali ci keneen kum mën a doon di ko doyloo ci yonent bi mu yónni woon ci ñun duñ ko jaamoo lu dul la yonent boobee jàngale ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngal la waay loolu sax leen ci ba bis bu ngeen di faatu fekk yéen a ngi doon ñu jébbalul seen boroom na ngeen ragal yàlla ci bu ngeen wéetee na ngeen ragal yàlla ci bu ngeen nekkee ca mbooloo ma xam leen suñu boroom day dara réeru ko ci li ngeen di def na doon lu baax la wala lu bon la li ngeen di def ci lu nëbbu wala li ngeen di def ca la nga xamee ni nii mooy la feeñ gannaaw loolu mbokk julit nañu xam ne day jaaru bi ci kaw suuf la nga xamee ni nii moo koy tax a texe mooy am na yoon bu ko suñu borom yàlla rëddal yàlla mi moom àdduna moom àllaaxira ne ko yoon bii day boo ci jaalee doo réer ca doo texee ci loolu nag lay dimbali ab jaam mooy mu sax ci yoon boobi sax ci topp yàlla moytu la ko suñu boroom wan ne ko lii kat boo ko defee dana jaxase sa dundub àdduna jural la sama mer loolu moo tax ba julit war a góor góorlu galluwaay yi yéen julit ñi ngi génn ci weer wu màgg di weeru shahru ramadan doonte ne weer boobee ñaari nit génn nañ ci kenn ki mooy ki jàppoon ne weeru koor chargé la ñi ngi doon yàkkamti wàññi bis yi jeex na ay ca jeex na amma jullit bi mooy ki nga xam ne moom weeru koor bi mu ñëwee am na njàngat yu bëri yoo xam ne jàngal na ko ci biiru koor am na jeexital bu bëri boo xam ne bi koor demee it loole moom bàyyee na ko ko loolu mbokk mooy lan mooy ñu daal di góorgóorlu xam ne gannaaw lu baax lay texe mooy nga teg ca lu baax waaye du ne gannaaw lu baax dem na léegi yow da ngay dellu gannaaw mbokku texeg doomu aadama suñu borom moo koy dogal waaye dogal googee it da ko wutal ay sabab sabab ya nga xam ne nii moo ca jiitu mooy yow jullit nga wéetal sa borom jalla waala sax ci la nga xam ne mooy ay ndigalam loolu mooy tax nga texe la nga xam ne nag mooy tax ba doomu aadama texe ji mooy ak kéeféer ak mooy yàlla ak sax ci ay bakkaar loolu mbokk bu ñu ne gis nañ ba seetlu ko ñu góorgóorlu waat it xam ne weeru koor day jeex na waaye nag lan mooy taxawaayu jurit gannaaw weeru koor mbokk weeru koor dafa ñoon di ñu entraîné ci ñu doon jaam yoo xam ne dañuy sax ci njub te fa lillahi alhamdu weeru koor bi bi mu ñëwee lu bari ci ñun góor ak jigéen gis na néew na tarxiis suñu tarxiis loolu nag day doon mbir moo xam ne dañ ko war a continuer suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni walladina ihtadaw zaadahum hudan wa aatawhum taqwahum ñi nga xam ne dañoo góorgóorlu bëgg saxal njub gi ñu nekk suñu borom mu ne dinaa leen dolli njub may leen la nga xam ne mooy ak ragal yàlla borom bi doon ci it ne wa yazidu llahu lazina htadaw huda suñu borom yàlla mu ne képp koo xam ne dogu nga sax ci njub man yàlla dinaa la dolli ak njub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misaal ni ko seen borom yàlla day képp ko dox jëm ci moom dana waaxu jëm ci yow ku waaxu jëm ci moom dana ñukk jëm ci yow walahul masalul aala ala kulli xaal kon mbokk mooy weeru koor dafa ñëwoon pour léegi nekk ci yow benn seetu ci lépp loo xam ne manqué woon nga ca nga góorgóorlu nag jëm caa dugg saxal ko lépp loo xam ne ay njuumte la woon weeru koor won la ko un mois yaa ngi nekk di ko moytu ngalaw bu loolu passé nga daal di góorgóorlu nag teqalikoo ak moom mboo ko xam leen ne teraanga bi gën a rëy bu yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf la nga xam ne moom mooy mu karaama muy teraanga bi gën a mag booy am ci kaw suuf wallay xamal ne du kër yeeg oto yi ak jaboot waaye karaam bi gën a màgg bi yàlla di teral doomu aadama mooy mu may ko mu sax ci kaw yoonu njub sax ala siratul mustaqim sufyan ibnu abdallah ñëw na ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko dama bëgg nga dénk ma ci lislaam kàddu goo xame ñi daal dana tax ma comprendre ko ba duma dem di ko laaj keneen yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko xam nga lay def mooy qul amantu billah summa staqim neel gëm naa yàlla wéetal ko gannaaw ba nag summa staqim summa staqim ala ala maza summa staqim gannaaw ba nga sax ca la nga xam ne mooy sunna bi yàlla tëral daare la ko ci ab yonentam mbokk li mooy teraanga bi gën a màgg bu doomu aadama yi am moo tax suñu borom it daa di ne إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ñi nga xam ne dañ ñu ñun yàlla la ñu doyloo moom la ñuy jaamu duñ ko bokkaale kenn kenn gannaaw ba nag ñu sax ca la nga xam ne mooy ndigal yàlla suñu borom mu ne tiitaanga du leen ñeel àdduna tiitaanga du leen ñeel àllaaxira njàqare duñ ko am àdduna njàqare duñ ko am àllaaxira la nga xam ne moo gën a màgg ci sax ci yoonu jub nag mooy wéetal borom bi jàll wa ala subhanahu wa taala ay yéen bokk julit nañu góorgóorlu suñu kantalal kattan li nga xam ne ni mooy shahru ramadan day dem na yàlla ubbil ci ñu lu bari ci ñun ay bunt yiw ay waay bu koor dem ñu tëj bunt yi nañ góorgóorlu saxal ci bunt yooyee ca xam ne lépp loo xam ne yaa ngi ko doon def ci weeru koor naka suñu borom bëgg ci weeru koor noonu it na ko bëgg ci beneen woo beneen beneen weer loolu it tamit nga góorgóorlu nga la way weeru koor doon loo xam ne nii da nga la yóbbaale ba lépp loo xam ne nii da nga ko doon def nga bokk ci jaam yi nga xam ne dañuy bëgg ak yokkute ci seen wàllu diine mbokk ñi ci àdduna la ngay xool fu ñu mën a bokk ci wàllu kéeséer lay seen itte mooy yokk ci seen wàllu àdduna amul kenn ci ñoom koo xam ne am nga dara ci xéewal bëgg xéewal googu dellu gannaaw bal boo demoon tey ci service yeeg yépp am na lu ñu tuddee des zaki mooy ab salaire bu nga xisee ba ba fixé xanaa tey dañ koy yokk waaye kenn xalaatul di ko wàññi loolu nit ñi ci àdduna mel ci seen àdduna joojee mooy bëgg nañ lu ñu am tey bu demee ne ñu am lu ko raw ci àdduna nga la waay yow julitit loolu nga war a mel fexeel ba jaamu yàlla doon jaamu yàlla yoo xam ne day yokk ci yow di yokk ci yow bañ a doon loo xam ne day dellu gannaaw di dellu gannaaw abdullah ibnu amru ibnu al as nee na yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam day nee na ma ca booba ci ndawi sahaaba yi la bokk ay abdallah bul mel ni diw mi ngi noonu bul mel ni diw moom day ko daan taxaw guddi di naafila la waaye mu xëy xëy bàyyi naafile guddi mbokk loolu da ngay gis sa njonte bu rëy la ay yéen mbokk julit suñu borom yàlla subhanahu wa taala indi na weeru koor yombal ko lool daa dina wali tukmilu l idda wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa laallakum tashkurun yombal naa weeru koor tënk lim bi ngiree ngeen matal ko màggal yàlla ci lim leen gindee gannaaw ba ngeen doon aji sant aji sant boobee lan moo ci gën a feeñ mbokk weeru koor dafa ñëwoon di entraîner la dafa ñëwoon di la teete la ba tey nga not sa bakkan not lu bëri ci cheytaan léegi nag weeru koor feral na la da ngaa war a góorgóorlu jéem a sax ci loolu mbokk julit da ngay xool tey koor boobu ñu doon def suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi tagg ci téeréem bi tedd bi wasaimina wasaimat ña nga xam ne dañuy sax ci koor ci góor ñi ak jigéen ña looloo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam ubbi leen ñu benn bunt daa di ne day man saama ramadan summa atbaahu bi sittin min shawal kaana ka siyaami dahr rawahu muslim képp koo xam ne woor nga weeru koor ba mu jeex bokkoo ci gaa yi na ëpp ba déwéni ci waaye nga daa di yëg bànneexu koor googee ba tax weeru shawal bi ci tege nga góorgóorlu woon ci juróom benni fan ak noo ko mën a woore nag ak noo ko mën a woore nga góorgóorlu ba woon ci juróom benni fan da ngay mel ni ku dëkke koor bokk na lu borom xam-xam yi di wax mooy dañ naan juróom benn shawal bokkul ak yeneen naafila yi yeneen kooru naafila yi ay naafila la waaye juróom benn shawal yàlla da ko yéege ci daraja yi farata fukk weeru koor bi nga woor taxaw na place fukki weer yi mu des ñaata ñaari weer yàlla may ñu juróom benn fan yoo xam ne da ko yëkkati ci daraja yi farata ba nga xamee ne ku ko woor da nga am tuyaaba yi ko wóor ñaari weeri farata waxuma nag ne farata la koor gi ci boppam de farata coobarewu la waaye ku ko def yàlla may nu ko gratu farata gannaaw loolu mbokk julit islam ubbil nañu la nga xamee ni nii moom mooy weer wu nekk rasul salallahu alayhi wa sallam ni ki ci jël ñetti fan wóor ko ci loolu day mel ni dafa jëkke koor aka nekkit ñetti fan yu dëppoo 13 14 ak 15 loolu kon ak naafila la ki nga xam ne weer wu nekk dala ci war ñetti fan ñi ngi mel ne kon weer yépp dafa dëkk naafila amma mbokku julit beneen bunt it suñu borom ubbi na ko mooy lu mel ne altine ak alxames yonent bi alayhi salatu wasalaam bari woon na di ko woor iyum yàlla yow lu tax ngay woor bis yi mu ne bis la yoo xam ne malaaka yi dañuy gaaral suñu borom mi xam mi ñàkk mi ñàkk ki nga xam ne amul kumpa ci dara malaaka yi dañ koy gaaral jëf yi jaam bi jëf man nag dama bëgg bu ñuy gaaral suna jëf fekk maa ngi nekk ci koor kon mbokk julit koor gi mi nga noonu waaye tey ak bari woon ci weeru koor ñu gis jàkk yi fees góor ñi jigéen ñi ñëw ci xiyaam yi bal ci ay heure yoo xam ne nii heure yu jafe la loolee mbokk ndax koor daf koy daf koy tëcc déedéet loolu da laa jàngal masalan lu bari ci ñun daana ñëw une heure du matin di dem xiyaam ñii deux heures du matin di dem xiyaam ngal la waay yàlla dafa jóg yombal nelawal nelawal ba quatre heures du matin nga daal di jóg nag daal di def la nga xamee ni nii mooy la ñu leen ci baal islam daan def fexe julli fukk rakka ak benn la def ci njël gi nga toog ko di jéggulu say bakkaar di ñaan say aajo wallahi di boo koy saxal sa dund da nga ci yëg benn changement benn tawfiq boo xam ne suñu borom yàlla ñi ngi la koy defal loolu ñi ngi noonu quatre heures bay bi saan rek la mën na koo gën a teel mën na koo gën a yéex ku nekk sa dépend ci la la yàlla may te la nga xam ne mën nga koo taxawee ci xiyaamu lay bu ca xeeb dara même bu doon quinze minutes la bu ko xeeb waaye ala kulli xaal bu ne weeru koor dem na de pare naag moom ngal la way saxal leen xiyaam boobu di ko def mbokk ana ñaata ñun ci ñun ñoo génn weeru koor ay sarax jëme ca jàkka ya jëme ci mbokk yi jëme ci masaakiina yi leen ni ñu ñu nekk ndax weeru koor day tëj bunte bi déedéet mbokk yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana ñaax sahaaba yi mi ngi noonu afshu salaam waatimu taam wasilu larham wa sallu bilayli wa naasu niyaam tadxuluna aljannata bi salaam yonent bi ba mu jëkkee ñëw madina discours ba mu jëkk a def mooy ay yéen nit ñi tasaare leen ñoo seen biir day leen jox nit ñi ñu lekk jox leen seeni mbokk bu guddi jotee taxaw leen di naafira kon day da ngeen dugg àjjana ci jàmm mbokk kon lii weeru koor dem na waaye la nga daan jël sa alal di ko séddoo jaamu yàlla yi ngal la waaye weeru koor bu mu ko tëcc rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn bis gis nga rek sallallahu alayhi wa sallam ngir ñaax ñu bis mu nañu def lu baax mu ne amul benn bis bu jant bi fenk lu dul yàlla wàcc na ñaari malaaka kii li muy wax ba guddi jot mooy yàlla sa bépp jaam bu gis buntu yiw mu jël lan ko wërsëgal def ca yàlla nañ ko wutalal lu gën keneen ki li muy wax e yàlla sa bépp jaam bu gis waree mu lànk bañ caa def yàlla nañ ko indil ay tolof tolof mbokk lii kon day wane ni def lu baax du pour weeru koor waaye def lu baax weeru koor dafa wóral ñu dafa ñëw ngir gën ñu ñaax ngir may ñu banil alir boo xam ne mooy gën a kawe loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax ca mooy falillahi alhamdu weeru koor ñëwoon na góorgóorlu nañ ci lan ca def yàlla yàlla nangul na ko waaye comme xamuñu ndax daañ ko fekke waat am déet ngal la waaye li ñu fekke moom nañ ci profito te it xam ne mbokk dund googu nekkul ci suñu loxo weeru koor bu barki de mboo njaay ñu ñal weer wi day def koor gi des na semaine des na weer ñu xëy xëy koor ñëw na ana koor koor dem na loolu it mbokk yow sa dund noonu la mel de ñu ngi noonu bu dégg bëccëg bi fi jële weeru koor bis bu dégg ba sa dund li fi jële su ko defee kay texe mooy koo xam ni la ko yàlla wërsëguloon ci guddeeg bëccëg ba mu demee fekk na fa pay boo xam ne bàmmeelam ba nekk na jardin ci jardin aljanna bu dëkk yowmal qiyaama yàlla yóbbu ko aljanna yal na yàlla musal ñu ci ñu yàq seen guddeeg bëccëg wala ne jural leen bëgg la bàmmeel jural leen merom borom bi subhanahu wa taala mbokk lii kon mooy la nga xamee ne nii mooy ab tënk boo xam ne ñi ngi koy fàttali suñu bopp di leen fàttali di ñaan yàlla di fàttali it la nga xamee ni nii moom la nettali ca mag ñu baax ñu daan daan def muy asalatu saalih daanañu wax ne lenn ci ñoom day su ñu saan génn ci weeru koor fu xelam demee ci koor dana ne ay yàlla yàlla nag ñu nangu niñ ci def buñ demee ba mat juróom benn weer ba xam ne koor gi def na juróom benn weer fu seen xel dem ci koor ñu ngi naan ay yàlla yàlla nañ ñu wër sa galaat ñu dajeeg weeru koor loolee mbokk ngir xam importance bi nga xam ne nekk na ca ko ñun ñu nit loolu la ñuy tëje di ñaan yàlla allahuma rabbana weeru koor bi ñu wërsëgal ñu dund ko yàlla nag ñu nangul lépp luñ ca def yàlla nag ñu baal bépp bakkaar képp koo xam ne jël nga ko ci yàlla na nga ko teeroo àjjana mu nekk wàccuwaayam ña nga xam ne ay natt teg na leen ci it yàlla na nga tegg natt yi fuñ ko probéwul woon yàlla nag ñu fajal suñuy aajo àdduna fajal ñu ko alaxira may ñu aafiye fi dunia wal axira boole ñu sa jaam yi nga xam ne dañ lay jaamu duñ la bokkaale dara boole ñu sa jaam yi nga xam ne dañuy dooloo yonente bi alayhi salaam mu nekk seen royukaay yàlla na yàlla may ñu mujj bu rafet te ñëpp mu dajale ñu ci àjjanaam yu kawe ya allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك